waaw ah, wàcce micro tuut tuut daal ah. micro yi micro yi wàccu daal ah. micro yi wàccu micro yi di tere ak yàlla di tere rek mosoo ko dégg mbokk la jaaw mosoo ko dégg mu frustré mosoo ko dégg mu weer lépp mu koy def rek ci commune la koy def ak liñ naan xel ci dof dof li ba liggéeyal sa bopp dañoo nekk ci réew moo xam ni boo dof dof kafoo foo ubbeekoo kenn du la faal dëgg la boo tëjoo rek. kenn la liggéey. dëgg la mooy doxee waroo sérieux boo nekk ci réewu Sénégal waroo sérieux da nga war a yëpp. dëgg la Sénégalais boo sérieux rek ñu daa yëg boppam. dëgg la dafa soof wala dafa reer. loolu moo tax di def lu ne mën na ko ci def lu ma yëgul da ngay gis ni sant yàlla saa yi. mu génn na naan pour seen nangam ci guddi gi daf may woo téléphone bu waree wax suba tey ci guddi gi nii daf may woo téléphone amul waaw yaa ngi dégg yëg ma respecté ma bëgg ma bu ma yëgalee bisam damay bàyyi lépp ndax man nag ni ma dem fu ma woo ñëpp si àpp moo tax la xew ma fenn yëg na la daal waaw yëg na ma respecté na ma am na fu ma teg te te bëgg na ma tamit. Pawlish day jékki ma man kenn rek may retaan loolu kenn rek laa bëgg. muy yow da koy wax fépp. Mm-hmm. te loolu nag mbégte la ci man te fierté la ci man moo tax su xewlee damay bàyyi lépp ñëw. fay nga ko bor en tant que mag en tant que parce que dama koy conseiller ci lu bari. Mm-hmm. te dañuy ànd nag di lijjanti lu bari te kenn du ko yëg. ñun sutura rek la ñuy dundee. Mhm. relation yegg na sama relation moom passé na ma gis marché bu am doole woo ko téléphone ne ko kaani doon mu lekk ci li mu ci lekk ma lekk ci ma ci lekk moom it yenn saa yi mu am doole woo ma ne ma yow la ñu soxla mu lekk ci li ma ci lekk mu lekk ci parce que loolu la ñuy dund te doo ko dégg fenn doo ko gis fenn. te bu waree wax ci man day wax ci man loo xam ni ci respect la koy teg mhm. ak ay valeur loo xam ne tey damay gis sa di ko retaan fekk nit ñi dañ koy jàppee classe waaye man dama koy jàppee mbégte. Mm-hmm. parce que ay retaan la may def ndax xamante nañ man ak moom. Mm-hmm. sama rakk la kon doomam yàlla na yàlla def mag mu tuddee nag Seydina Mouhamad. mu mu ak Bijou Ngoné. Mm-hmm. moo indiwaat kóllëre. ndax tamit Bijou gis nañ taxaw bi ñu ko taxaw ak bëgg bi ñu ko bëgg bu ko tuddee doom war na Seydina Mouhamad képp man dama naan képp ku am sa taaw. bu góor kooku rek nga ko war a jox. waroo koo jox kenn ci àdduna man mi tuddee naa Seydina Muhammad kon dañuy ñaan ko ku bëgg yàlla defal la ko. amiin am na solo barke Seydina Muhammad boobu ci doomi màgg ba di ko teral. Mhm. barke Cheikh am na solo jërëjëf